alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. awuzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. ñoo ngi leen di nuyu. ñu leen di sargal. ñu leen ndokkeel ci. loole nga xam ne tey ci la ñu nekk mooy char ramadan al mubarak waxoon nañu démb ak yéen ci lu bari ci li nga xam ne moom la ñu soppoon ci koor waxoon naa ne bokk na ci nga bari looy ñaan wax naa sax ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam waxoon na ne salaasatun laa turaddu daawatuhum am na ñett ñoo xam ne seen ak ñaan kenn du ko nangu الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم yonent bi nee na ñett seen ñaan yàlla daf koy nangu maana nit ki nga xam ne tey dafa woor bëccëg bi yëpp li nga ñaan yàlla daf koy nangu naka noonu imaam bu jub lu mu ñaan dañ koy nangu naka noonu ku ñu tooñ lottal ko néewal ko doole kon juróom-benneelu mbir ya waxoon nañ juróom ya ca waxtaanu démb wa juróom-benneelu mbir ya ca ya ñu sopp ci koor mooy nga fegu ci lépp loo xam ne dafay dàquwante ak koor gi maanaa waxoon naa ko na dàq koor ni ko gune yi di defee summeeku sol ay mayo góor ak jigéen yi ñu jaxasoo ca plage ba ca weti géej gi ne dañuy dàq koor mu ne ma ne wax nañ dëgg dañoo xamut dañoo déggul la wax koor ga la ñu dàq ndax koor ga moom dem na ndax mbóosóor ya ak yaramu neen ya ak caaxaan ya loola daq na koor ga kay duul ne xam naa bu ñu waxoon sax dégg naa oustaz Moustapha Ndaw naan bu ñu waxoon dàqub dàqub jant sax xanaa eh, naka day ñu ne dàq jant bi maanaam dañuy dàq bëccëg bi dañuy dàq ab jant waaye dàq koor moom baaxul boo ko dàqee day dem nga ñàkk ko lu toll ni koor nga xam ne bu wéyee déwén lay dikkaat moo ndax dañ ko fekkee wala déet moo ndax li nga ci def nangu nañ koom déet kon jaruta dàq dañ ko bàyyi mu toog fii kon nag nañu fegu ci lépp loo xam ne dafay dàqwante ak koor loolu ndax koor moo gën ci xeeti jàmm yàlla yi yàlla sariyaal gannaaw julli ndax koor dafay sellal bakkan koor dafay miinal nit def aw yiw euh, koor ah dañ ko war a wattu ndax mu ngi bokk ci jëf yi nga xam ne yàlla def ko gërëm kon nañ nga wattandiku lépp loo xam ne dafay wokk sa koor gi jëm ci di ko yàq bee nga mën a jëriñ ci sa koor bee nga mën a am ci koor gi lu ñuy tuddee taqwa ndax njëriñu koor yëpp mooy laallakum tattaquun di woor ba yàlla may la taqwa comme ni nga ko waxee woon ci alquran ci yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaquun loola kon ci koor nga ko mën a amee walaysa siyaamu mujarradu imsaakin an al akli wa shurbi innama huwa imsaakun an il akli wa shurbi wa saairi ma naa anhu kon koor a nekkul rek jàpp ñàkk lekk ñàkk naan wante mooy bay lekk bay naan ak lépp loo xam ne tere nañ la ko ngir yàlla jële nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu mi kenn ci kibaaru saxaaba taqoo ak yonente bi moo ëpp ay hadis yu mu solo bon Omar ibnu Xattaab sax mas na koo caw naan ko sa xadis yi bari na boo moytuwul da ngay fen nt bi saa itam doon na wax naan man lam yada qawla zuur wala amal bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabah mu ne képp koo xam ne bayoo ay mboosóor ak i kàcceeg nar ak waxi caaxaan ak di ko jëfandikoo yàlla amul benn soxla ci ngay bàyyi sa lekk ak sa naan di woor ndax sa koor gi baaxu Abu Hurayra mooy wax ba tey dégg nit bi di wax naan rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila al wa rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila as-sahw déggoon yent bi di wax naan bari na ah, aji joo xam ne amul ca koor ga lu mu yëpp waaye bari na kuy taxaw guddi di julli amul ca taxaw ba lu mooy foog mooy ñàkk nelaw rek kon nag loolu mën naa bàyyi xel juróom ñaar ba ci ñu sopp ci koor mooy soccu soccu nag ah lu ñu sopp la ci bëccëgu koor gi kon nag du lu ñuy aaye waaye lu ñu sopp la laa farq nag moo xam ci njël bi bëccëg bi la moo xam ci mujj bëccëg bi la moo xam ci digg bëccëg bi la bëccëg bi yépp daal so soccu moom sopp nañ ko alimaamu tirmisi dafa génnee ci saxiix di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yatasawwaku wa huwa saayim yonent daana soccu fekk dafa woor kon moo te mooy royukaay bi juróom-ñetteel ba ci li ñu sopp ci koor moo di tabe tabe daal mooy di joxe bokkul ak yàq maanaa na daan joxe moo xam dafay am ñu koy wut si ci yow moo xam yaay coobarew rek di joxe ngay gën a tàlli sa loxo ci ab joxe ak itam di ci jàng alquran di ko jàngalante loola moo indi jàkk yi di ciy def tafsirul quranul karim di ci jàngalante alquran euh, tabe ak jàngal jàngalante alquran ñaari ñu sopp ci waxtu wu nekk waaye nag bu koor jotee ci la gën a dëgër nag ci la gën a faje Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu daana wax naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada nasi wa kaana ajwada ma yakun fi ramadan xiina yalqaahu jibril wa kaana yalqaahu fi kulli layla min ramadan fa yudaarisuhu alquran fa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nnaasi bilxayri min arriix almursali mursalati mu ne jàng alquran ak jàngalante alquran ci biir weeru koor ak toog di firi alquran ci weeru koor wala toog fi ñuy firi alquran ci weeru koor mu ne loola bokk na ci li ñu sopp raate itam moom ak tabe ci weeru koor bokk na ci lu ñu sopp ndax jibril day daana def koor gu nekk bu jotee mu ñëw ci yonent bi ñoom ñaar ñuy nafaraat alquran ji tey gisoon nañu yonent bi ni mu tabee ci weeru koor dafay mel ni muy joxe mel ni ngelaw loo xam ne dafay rit riddi day upp rek di ba muy dem kon nag juróom-ñeenteel ba ci mu mujj ci yi ma la waxoon ne sopp nañ ko ci koor te mooy li ma ci tënkoon mooy farlu farlu ci jàmm yàlla rawatina ci fukki fan yu mu ji ci weeru koor nga xam ne ci la ñuy xarfaan laylatul qadri te dinaa ci ñëw ca kanam bu ko yàlla dogalee al imaamul ak imaamu muslim ñoom ñaar yëpp jëlee nañ ci aïcha radiallahu anhu mu yax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa daxala al-ashru al-awaaxir ahya al-layla wa ayqaza ahlahu wa shadda al-mi'zar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ci weeru koor daan dundal guddi gi ci naafila ak jaamu yàlla day yee sax soxnaam yi daana jël sax am ab sër di ko takk ci ndiggam góorgóorlu ak ci biiram ndax mu di ko dimbale ndax muy taxaw guddi imaamu tirmisi jëlee na ci ali ibn abi talib muy wax naan kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqizu ahlahu fi l ashri l awaxir wa wa yarfa al mizar daana feddali laxas saayam ci fukki fan yu mujj ci weeru koor waaye daana yee ay waa këram itam ñoom it ndax ñuy jóg di def lu baax mbokk yi loolu moo doon fa mbir yi nga xam ne waxoon naa ne ay mbir la yu ñu sopp ci e, weeru koor mu di mbir yoo xam ne dafay rafetal liggéey ba dafay rafetal itam li nga xam ni mooy koor ga xam nga koor baax na lool waaye itam a fokk am nag loo xam ne moo koy e, e, dëgëral di yokk yool ba Moustapha Gueye moo leen doon jottali lii nga xam ne mooy waxtaan yàlla yàlla def ci ñun dégg toppandoo ko ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu